seen premier ministre muy Ousmane Sonko tax na sénégalais yi kenn bëggatul assemblée nationale fu nekk taxaw na fa yàq fa deru assemblée nationale ma jàpp ne assemblée nationale bu bon boobu bu baaxul boobu mu bañee ñëw def déclaration politique générale am foog naa ne waru waruñoo yónnee benn projet de loi pour ñu koy voté. Je demande d'évacuer tout le public, le monde. Sortez tout le le monde. Je demande à tout le monde de quitter les gradins. Asseyez-vous. J'ai la police de la salle. Asseyez-vous. Regardez le règlement intérieur. Le règlement intérieur me donne ce droit. Asseyez-vous. Voilà. yónnee eh, mettez-vous eh retournez votre place ça sent très clair hein eh reju eh retournez là voilà Je suspends la séance. Je suspends la séance. rasul donc euh, mbokk yi mu ngi noonu voilà donc euh, mbokk yi mu ngi noonu suspendu donc elle est suspendue fii ci assemblée nationale le président de l' assemblée nationale Amadou Mame Diop suspendre li nga xamante ne moom mooy euh, plénière yi après seulement Euh, le passage de trois à quatre orateurs Ibrahima Baba Sall moom moo njëkk a jàll gannaaw bi également gis nañ ni am na yeneen député ku ci mel ni ñi magu bi moom tamit jàll na wala donc euh, Karim Sène député donc euh, maire de Fimela moom tamit jàll na Fanta Sall également jàll na en tant que député de la coalition Benno Bokk Yaakaar daal di wax ak ki nga xamante ne moom mooy le ministre Ousmane Diagne ne que du ñu voté li nga xamante ne moom mooy projet de loi bi euh, mais incident bi waral tey jii ñu suspendre la séance mooy euh, perturbation yi nga xamante ne. mu ngi am fii ci assemblée nationale du haut de la tribune ku xam ni assemblée nationale bindoo euh, gannaaw li nga xamante ne nag moom mooy euh, salle plénière yi nga xamante ne fa la député yi di daje am na également ay tribune ay box yoo xamante ne euh, fa la ñi ànd ak autorité yi di installé wu mais également ay box yoo xamante ne fa la journaliste yi di installé wu ci kawam nag am na benn tribune bu yaa bu yaatu boo xamante ne fa la nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbokk yenn ci autorité yi foofu la ñuy installé wu Euh, c'est comme au tribunal de am droit également assister li nga xamante ne moom mooy séance bi mais dañ koy def selon ni ko réglement intérieur bu assemblée nationale tëralee dañ koy def donc dans la discipline euh, mais li ñu seetlu mooy euh, bi liste orateur yi tàmbalee rek am na koo xamante ne si ñoom la fare si ci kaw di haut de la tribune comme ni ma ko waxee benn spectateur boo xamante ne euh, dafa daal di ñambaas ay kàddu ci li nga xamante ne moom mooy débat yi am fii ni en plénière te euh, le président de l' assemblée nationale Amadou Mame Diop qui fait la police de l' assemblée jàpp ne kooku rek amul droit wax ñoom li ñu war a def rek mooy déglu débat yi am fii ci assemblée nationale mu neex leen mu nakari leen dañu war a teewlu rek déglu waaye waruñu euh, perturber li nga xamante ne moom mooy le déroulement donc de la séance donc ñu keneen koo xamante ne également euh, bi Fanta Sall di wax Fanta Sall di député également ci euh, euh, coalition Benno Bokk Yaakaar di wax yëkkati ay kàddu yu saf-sàpp teg ko ci ndodal ki nga xamante moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko mi mu jàpp ne tey jii nii fu mu nekk nii moom moo nekk derrière tout ça te ñeemewul taxaw fii ci assemblée nationale ngir défendre sa déclaration de politique générale Fanta Sall attaqué ko jàpp ne même fonds politique politique am loolu tamit lu xaraam la gannaaw nag bi mu yëkkatee kàddu yooyu ci la kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci kaw fii ci assemblée nationale daal di yëkkatee ay kàddoom daal di tontu ki nga xamante ne moom mooy euh, Fanta Sall ki nga xamante ne nag moom mooy euh, le président de l' assemblée nationale Amadou Mame Diop daal di. Euh, tontu daal di ne euh, faites-moi évacuer euh, tous les spectateurs maanaam daal nañu génne ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci kaw di haut de la tribune comme ni ma koy waxee ci assemblée nationale génne leen ci biti ku ne xam na ne nag euh, ñoom bu ñu nekkee ci kaw am na ay gendarmes yu fay nekk fii ci assemblée nationale di veiller à la sécurité au calme. Euh, vraiment à la tranquillité ñooñu tamit euh, comme digal rek la ñuy demee ñooñu lu ñuy def mooy daal di dem ci kaw daal di génne jëlee fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci kaw ci ay spectateur te waroon toog rek euh, déglu génne leen ci biti loolu nag bi mu jëlee décision boobu député yi faree ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi bëri na ci gis ngeen Guy Marius Sagna mu ngi noonu li saafoonteeg ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñooy Massata Samb gis nañ fa soxna ba numéro 2 ñoom daba wañaan mais li gën a tax tey jii nii nga président de l' assemblée nationale daal di évacuer di suspendre la séance mooy euh, le fait que kenn ci euh, ki nga xamante ne euh, ñenn bokk ci ñi nga xamante ne ca groupe parlementaire Benno Yewwi Askan Wi bokk ku ci mel ni Cheikh Thioro Mbacké ku ci mel ni Idrissa Diallo dañu daal di déplacé wu dem ca pupitre ba pour mën a waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy le président de l' assemblée nationale Amadou Mame Diop daal di marqué seen désaccord euh, gis nañ ko ci mel ni ñoom euh, Abbas Fall ñoom tamit ñu ngi doon wax ak ñi féete ci kaw ne leen nañ toog bu ñu génn saal bi di euh, sa Diallo ak. Cheikh Thioro Mbacké demee pour waxtaan ak Amadou Mame Diop ci la Amadou Mame Diop en tant que président de l'Assemblée nationale gën a yéegal ton euh, wax ñoom ne leen retourner à votre place wax na sax ba euh, placer benn kàddu benn expression en wolof ne leen bu leen ma fonton ñu gis donc pour la première fois un président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop connu pour son calme olympique qui s'emporte pour la première fois yëkkati ay kàddoom wone ne carrément mer na situation bi xew ba tax tey jii ñu mu suspendre la séance donc mbokk yi lii moo fi ñu war a retenir également te mu di lu am solo tey jii nii ñu te fii ci assemblée nationale pour mën a procéder à l'examen euh, euh, du projet de loi euh, portant suppression du haut conseil des collectivités territoriales mais aussi Euh, du conseil économique social et environnemental la liste des orateurs gudd na lool gudd na lool gudd na lool donc su fekkee ne séance bi euh, dina continuer ci paisibilité su fekkee séance bi dina continuer euh, ci tranquillité mën nañ njort ne tey jii nii fii la ñuy yendoo parce que mu mel nii daanaka ñu bëree bëri en tout cas plus que la moitié donc des députés de l'Assemblée nationale bindu nañ pour mën a jël kàddu daal di yey yàbbi ci li nga xamante ne moom mooy projet de loi ñeel euh, jëlee fi li nga xamante ne moom mooy le conseil économique social et